Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi te bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant. asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amaat nañu mbégte ak contentement dikkaat ak yeen ci émission bi ngeen tànnal seen bopp di léppay leer mbokk yi tey nag léppay leer mbégte ak contentement la ñu àndal di dalal rek ki nga xamante ni moom moo di euh, imam Cheikh Sall nekk président association des imams et arabisans euh, fële ca diwaanu Touba ñu seet si ko nag tey mbokk yi fii ci biir këram fas yéene waxtaan ak moom ci waay wàllu waajtaayu màggal gi waaye itam waxtaan ak moom ci wàllu actualité yi nga xamante ni mooy xew fii ci biir réew bi ak sax ci àdduna euh, yaa imam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara te itam dina jox sa wàccuwaay. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu eh, gannaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Sénégal 4 TV. di nuyu mbooleem ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan. waaye yeneen kilifa yëpp yi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel di ñaan sud bi eh, mu dem ba mel ni Al Jazeera wala BBC te loolu li koy may rek mooy engagement ak mm. détermination Euh, yàlla man na ko te yàlla na ko yàlla def. effectivement macha allah ci euh, ci nuyoo bu am solo gi yaa imam euh, fi ma bëgg nag tàmbalee suñu waxtaan man ak yow mooy que dañu gis ni àdduna tey fi nga xamante ne nii feebaru bi ñu duppee coronavirus toll na fa ci àdduna ñu gis ni ay bërëb yu baree baree bari rawatina fii ci biir réew bu Sénégal tëj nañu leen ngir wàllu feebar boobu. Hmm. waaye ñu gis Touba am ci taxawaay boo xamante ne nii mara day taal yi rawatina màggal gi nga xamante ne nii moom la ñu dëkkmal. ñu ne faw dafay am ah lan mooy li sabab loolu. Mhm. waaw jërëjëf sëñ bi laaj nga laaj bu am solo euh, dañoo toll ci li ñuy tuddee aaxiru euh, zaman euh, mu mel ni depuis at bi ñu génn ba dugg ñaareelu at Sénégal mi ngi nekkoon ci ay jafe-jafe. Mhm. su ma nee jafe-jafe mooy Covid bi bi nga xam ne moo wàcc ci àdduna bi yëpp. Mhm. bi Covid boobu wàccee ci àdduna bi réew mu nekk ak ni nga xam ne noonu nga koy gérer. mais bu dee réew yi nga xam ne ñoo gën a néew doole lu mel ni Sénégal gis nañ ne ginnaaw bi ñu demee at ak lu topp ay jafe-jafe la leen jural. Mhm. li ma ci bëgg a wax mooy niñ doon seeree Covid bi ci biir réew mi baaxut loolu moo waral tey réew mi sonn réew mi nekk ci xiif réew mi nekk ci ndóol réew mi nekk réew moo xam ne ndox moo naan mu baax sax dafa xaw a jafe. gis nga ne mbënd mi ñëw fekkaat ñu fi daanaka li muy rey ci doomu aadama Covid bi waxaale wu ma ko Euh, euh, am na ñoo xam ne seen kër la ñu tëdd ba faatu ngir amuñu lu ñu lekk loolu moo raw Covid am ñoo xam ne seen kër la ñu nekk euh, amuñu ordonnance leneen moo leen dal nag hmm. waaye mënuñu dem hôpital ndax ku dem hôpital ñu ne la lii moo la dal loolu lépp dajee ci biir Sénégal hmm. ñu tëj réew mi ñaari at yàlla am na alal ju bari ju ñu génne woon hmm. mooy lu jëm ci edd alimentaire bi ne dañuy jënd ceeb ak i macaron pour séddale ko askan wi bañ ko jëndee lu tuuti lañ ci jënd macaron bi gën a bon ak ceeb bi gën a bon sëf ko ci oto yi gën a bon yët ko sénégalais yi quelques personnes am ci réew mi sonn lool ñu dem atu yàlla ñu wëlbati ko ñu ne danañ génneewaat mille milliards bi ñu génnee mille milliards ñu jox ko ab Abdoulaye Diouf Sarr ñu ne lépp lu jëm ci seen sante moo koy gérer euh, sëñ bi àgg nañ ci masque sax mënoo koo jëndal boo pour li nga soxla ko da koy jëndal sa bopp bi ñu jeexee sénégalais yi laaj suñ mille milliards yi fan la dugg. ñu ne woo nañ Abdoulaye Diouf Sarr OFNAC mu lànk ba ñu wuyu ji kenn xamul fu mu dugg. sénégalais yi raxasu ca ñu ñu indiwaat deuxième vague. sénégalais yi nekkat ci jafe-jafe boobu. ñi doon tukki am ay jafe-jafe ñi nekk ci biir réew mi am ay jafe-jafe commerce bi daanu économique bi daanu. njàng mi yàqu kenn amatul dara dara dara lu dul gouvernement bi nga xam ne ñoo fi nekk. askan wi di teg seen bët ci loolu loolu nag tëj ba yàgg lool tëj ba metti lool tëj bi nag dañ cee dugal loo xam ne da cee bokkut dinaa ci ñëw mooy daa am loo xam ne diine da koy bañ gis nga wàllu feebar yonent bi alayhi salaatu salaam nee na su yàlla wàccee feebaram nee na ñiy dem ci jàkka ji man yàlla dinaa leen ci musal feebar ba du leen dal muy imaam yeeg bilaal yaag maamoom ya ay julli loolu tax abdullahi ibnu omar mooy wax mhm. ci téeréem boobu ñu tuddee alkitab wa sunna man nag toujours da ba may wax naan xam laay wax ñi jàng am niwo universitaire ñu dem gëstu ji bu baax li may wax ni ci al alkitab wa sunna ci jusul awal ba ñu koy tuddee daarul muna soo àggee moom Abdoulaye Ibn Omar di ko xam ne lépp lu mu wax dëgg la nee na ku tëj sa jumaa ngir yii taw bu bari wala feebar wala mbënn wala ay agrisé yoo ragal pour bañ a julli ji nee na boo faatoo safara nga jëm mu waxaat ne boo tëjee sa jàkka jooju bañ a julli ji ngir kese kese kese wala manipulation dal sa kaw nee na yow ak firawna ak xaamaan yéenay bokk jahannama nekk fa sénégal nag jàkk yu at mak nañ ba mu touba mhm. euh, ak makka amul daaw xam nga mhm. <laughs> amul reen xam nga kan mo waral loolu mhm. euh, makka dafa nekk patrimoine mondial ko Mohamed Ben Salman Mohamed di doomi Ben Salman papam am 90 quatre vingt Bijare ans presque di géré mag la moom ji jël muy jël décision makka du am motax sax tay monde islamique man damay wax ni bu fekkoon amoon nañ fulla ak fayda benn bi kenn ku ci nek da ngay encadrer say ojaat tek sa arme ne damay acc parce que kaaba gi ñepp ko bokk bla nga jël benn décision ne kenn du fi ajee dafa fekk aduna bi waxtaane ko mm. waye ñom ñi ngi lank bañ a aj màkk mais ba ñu ko ñanga dem tay di di dem ci ay ngumbay di dem ci ay caaxaan lolo taxone nak ma ngi bëgg a débat mm-hmm. Touba da yëmul tak benn dëkk ñaari at yi ñu génn Touba mo fi dajalé 5 millions de personnes daaw waaw ñu ne ñii bu buñ jógee ci màggal gi ñëppay feebar bañ jógee ci màggal gi xam nga lu ñu am. Mhm. am nañ 15 jours un mois amuñu deux cas. waaw loolu kenn ko ci nekk sa xel ak sa xalaat lu mu lay jox da war a jàpp ne kon ndekete man depuis Covid bi ñi ma doon informé di ma wax ba tey lu ñu mës a wax du dëkk ndax yàllaa leen weer. xam nga lu waral loolu. Mhm. mbënd mi tey daaw dañ ne woon 15 milliards lañu jël def ko ci li nga xam ne mooy Kër Massar. Mhm. xam nga ñun xamuñ ci woon dara. waaye taw bi bi mu wàccee lay lu mu wane da ngay wane ne fii cinq millions sax demu fi. Mm-hmm. ak 765 milliards yooyu ñu waxoon ne moom la ñu defoon ca plan décennal ba kenn gisul xaalis ba ministre ba dàq nañ ko ca jamono yooya. Mm-hmm. loolu nag moo mooy frustration bi dajee ci réew mi métti ñëpp ba moo war a tey sénégalais yi boo leen waxoon dégg ñi di ñëw. Mm-hmm. dañuy dox dajig deegi ay laalal seleb ay raxasul ak ay laalay maska xoolal nit ñi gëmatuñ ci dara ndax dañ mm. leen a fen ci depuis ñaari ati yàlla lekk seen alal lekk seen moomeel wanteer leen ci àdduna bi léegi nag mënatuñoo wax dara loo xam ne gëm nañ ko loolu moo waral nag Touba moom mosu ci bokk parce que xam nga lu war a loolu mm. ba bañ jotee sëñ Touba moo taxawoon ne man damay bañ sëñ Touba moo waxoon ne mm. fa lay sa yuju jibu sa waadul jismi safahatal fata wa su al fahmi mm-hmm. mu ne man sëñ Touba ma nekk africain wala ma yoree der bu ñuul wala ma gàtt kawar wala ma yore kawar bu ñuul man sëñ Tuubaa taxul ñun ñu ñàkk fayda ci kanam tubaab yi taxul ñu yaafus taxul itam ñu gàtt alliwa taxul ñu ñàkk ay gis-gis waaye lépp lu ñuy wër ci doomu aadama mu ne boo ñëwee ci ñun africain yi fekk ko ci bay boobu sëñ Tuubaa daf ko taalif doon goreel der bu ñuul pour ne leen yéen africain yi dangeen war a am fulla am fayda ba bu leen kenn not baa mu jël buum di ko laxas ci seen baat bi loolu moo waral màggalu Touba gi tey ñu woote ko avant màggal Touba gi may ñëw damay wax ci benn bis bu ñu def bu yàggul mhm. gars yi dañoo dox Macky Sall daa dugg ci réew mi wëndeelu ba mu neex mhm. mu ñëw toog Dakar na leen eh ñu ne waa mu ne troisième vague waaw wax nga dëgg de bu la neexee troisième vague gannaaw bi nga xamee ne dox nga say soxla ba pare di natt sa bopp ba xam ci réew mi fu ñu toll ci yow mhm. Touba woote benn journée xasida journée xasida bi li ñu ci jubloo mooy jàng xasida ñaan yàlla mu taw parce que nawet bi tawuloon mu taw ndox mi wàcc nawet bi am génneel ñu li nga xam ne moo fi nekk mhm. tey ci ak lu mën a doon rek ci feebar yi nekk ci réew mi yëpp rek ndax feebar yi mat nañ junniy feebar mhm. benn lañ ci jël tuddee ko benn feebar ma tuddee ko covid politique covid boo xam ne ci ngay làqu mhm. di lekk xaalis di not sa askan waaye adduna bi yeewu nañ mhm. sunna xasida bañ ca jógee yàlla ji taw ndox mu baree baree bare wëlbatikuwul ñoom niñ koy tuddee ñoo xam ñi ngi koy yokkook yokkuñu kook yooyu màggaluk Tuubaa mhm. kenn mënul tere ba bis jot ñu ne kenn du ko amal loolu nit ñi mu koo xalaat moo tax dañuy làmbu nii rek léegi nag tey màggaluk Tuubaa googu mhm. euh, Sëriñ Touba mi nga xam ne moo ko moo moo moo ko digle ñu di ko def ci Touba le vingt cinq septembre Euh, xam naa ba ñu guddal mu nekk bis bu am solo da caa digle ne mhm. ginaar ba ci gileem wàcce kaamil alxuraan mhm. benn bi ñaanal ko ci benn bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. lépp lu waaye def ren bu ne nga def lu ko raw mu ne ijal tahaami wa zarabi ya karimu zikran wa sukuran sawaban laa yërim yow yàlla képp koo xam ne dafa ma reyal lu toll ni ginaar bàkkaasum ndox mu jël ko jox ko nit mu naan ko yàlla mu ne yow yàlla defal ma loolu mu nekk faju aajoom ba keroog yow mal kon xam ngeen ne màggal jar na lu ne mm-hmm. ndax fàttaliku suñu borom la ak sant suñu borom mm-hmm. ak ke delloo njukkal ki nga xam ne mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla wax ci alxuraan ne mm-hmm. la in sakartum la ko bu ngeen ma santee ma dooli leen waaye bu ngeen ma weddee wala in kafartum ina hasabi la sadit ma duma leen mu ne nag cant yi ci la ñuy rawantee bu fekkee dem nañ ne ba jaamootuñu yàlla nangootuñoo cant nangootuñoo dellu ci jàkka yi yooyu bu boobaa yàlla ne dinaa wàcce am mbugal moo xamante ne bii tey du bàyyi kenn xam nga lu yàlla tey wax ci benn dane bu ngeen jógee di daw ñu ne ko mu ne da ngeen di daw ñu ne ko waaw mu ne fu ngeen jëm ñu ne dee lañuy daw mu ne fa ngeen jëm fa laa koy teg fa laa koy teg ay na ma takuunu yudrikumul mawt foo leen man di fekk dee dina leen fekk mu ne waaw wala kuntum fii buruuj musayyada mhm. bu ngeen yéegoon ba ci juróom-ñaari asamaan ci kaw ay tata dee fekk leen foofu noonu qul inna al mawta allazi tafirruuna minhu mhm. fa innahu mulaqikum mhm. yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal gaañu ne leen bu fekkee dee ngeen di daw di ngeen ak moom tase ak moom fa innahu mulaaqiikum summa turadduun mhm. looloo tax ñuy màggal Touba euh, màggal gi nag mhm. dafa nekk social bu ma waxee social mooy kër gu nekk day rey ay nag mhm. sëñ Saliou bi mu fi nekkee dama ciy santaale kenn di ko ci tudd muy Seex Béthio Thioune